di woo yonente bi lu ko kenn du woowe di ko wax lu ko kenn du wax day boole wenn bayit ci xaside yi woo ci yonente bi woowin woo xam ne kenn mus ko woo yonente bi ahmaduna rahmatuna hamiduna nihmatuna عمودنا فرحتنا والجود المسير دي محمودنا